ëpp si ñoom bàyyeekoo Daara Jolof jamono ji ñuy jànkoonteel ay jafe-jafe yu métti ci dëkk bii di Maroc demoon ngir daani seen doole. dañoo doon jox bi immigré yi waaw daan suñu doole rek moo taxoon di jox ndey ak bàyyi waaw dimbale njaboot yëpp suñu borom nag mooy ndangu xañ nag ñu jaarale mooy ñëw Maroc fii mu tëw tëmbi ci tat yàlla ak mbaax sant dogal googu nag waaw sant suñu dogal googu ñu teg. jamono ji nag. phénomène migration am doole loolu ci réew mi ndaw ñi di utali Europe ngir dem daani seen doole. ñu ne dañoo yow fii fi mu mënoo dem moo ñu fi a dajale nii pour nag moo gën ci ñun. waaw ne ci àll bi dafa di yàlla waaw parce que di njiiti réew mi Macky Sall moom li mu bëgg mooy kii di njiitu armee bi jël si ay ndogal ngir képp ku bokk ci mbir mi ñu mën laa teg loxo.